matériel boo xam ne rek balaa yàgg dara daañu ko amal jëmale ko ci daggum bant yi bu ko defee matukaay yi ci war yépp nag ñu daal di koy mën a jël ci yëglekaay bi Ousmane Sonko ma ngay xam ne ni nag faaw ñu amal ay audit yi jëm ci disposition yi nga xam ne rek moom la direction des eaux et doon jël Vox Populi ko ne lu jëm ci wàllu daggum bant yi kay jamono ji nag nguurug Sénégal fas yéene na caa taxaw amal ci ab xeex bu am solo rawatina ca bët Saalum naka noonu ca penk bu Sénégal Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay yëglu jëmale ko ci catastrophe environnementale écologique boobee nga xam ne rek que faaw ñu jël ci ay matukaay naam kilifa yi fi nekkoon boobaak léegi ña nga cey jël seen ay mesure waaye gis nañu ne jurul benn coppite loolee waral ba Ousmane Sonko di xam ne nii faaw ñu amal ab conseil interministériel waxtaanee ca bile dossier lu jëmit ci càmbar gi nga xam ne rek moo ñeel koppar yi ñu daan dugal ca direction des eaux et forêts faaw ñu xam nag yéen liggéey la ñu ca daan amal la soleil yëglekaay ne lu jëm ci wàllum préservation bu environnement ak journée nationale d'investissement humain bi ñuy amal benn fan ci weeru juin njiitu réew mi président Diomaye Faye ma ngay sàkk mobilisation ci conseil des ministres bi ñu doon amal moom njiitu mi sàkku na nag ñu daal di amal ab politique boo xam ne rek moom la Sénégal di doxal jëmale ko ci wàllu transition écologique taxawal itam ab programme national boo xam ne rek dafa jëm ci soññ askan wi ñaax leen bu baax a baax nag ngir ñu daal dakkal ni ñuy daggee garab yi ci biir àll bi Walf Quotidien faylu ko ne kilifa yu Sénégal yemuñ ca loolee rek ndax ña ngay àddu jëmale ci li nga xam moom lañ doon tudd ca ministère de l'environnement yéenekaay bi ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay càmbar ñeen fukki milliards ak juróom yi nga xam ne rek moom lañ ca dugaloon l'informateur feelu ko ne premier ministre kay ma ngay sulliwaat boobee dossier moom Ousmane Sonko daal dinay xam ne nag ne li gën a am solo jamono ji nag mooy ñu amal ay audit jëm ci financement yooyee nga xam ne rek nguur gi fi nekkoon moom la amaloon ñeen ay fourniture jëm ci wàllu équipement de sécurité wàllu véhicule d'intervention naka noonu itam ay matériel technique jamono ji nag jëwriñ yi bokkoon ci nguurug Macky Sall yoon nag gouvernement bu Diomaye fay mi ngi leen di bàyyi xel leneen loo xam ne askan wi bàyyi nañu ko xel ba mu jur coow démb ak tey nag bokk na ci affectation bu général Kandé lay fa yëglekaay ne Kandé moomee nga xam ne rek dañu koo bëgg a yóbbu ca Inde def ko attaché de défense yéenekaay bi ne jur nap ñàkk a déggoo jamono ji nag ci ab décret 2024 873 bu 29 mars 2024 nga xam ne rek moo daal di taxawal mission militaire yi nga xam ne rek dañuy doon ay ambassadeur wala ñu jël ay officier général wala ay supérieur des forces armées daal leen di def ay attaché de défense et de sécurité lu ni mel nag ca la njiitu réew mi daal di tënku yéenekaay bi samp ab laaj ne lan moo waral mesure boobee ñu jël jëmale ko ci kaw général Kandé ñu bëri jàpp ne sanction la wala humiliation lu mu ci mënti doon daal jege gu mu jege woon régime bu Macky Sall naka noonu intervention yi mu doon amal ci wàllu maintien de l'ordre ci ay manifestation politique yi ñu daan amal fii ci réew Sénégal yéenekaay bi jàpp na ne loolee bokk na ci li ko jural lii ko dal niki tey ji Le Quotidien des ba tey ci affectation bu général Kandé ca Inde bi ne Ousmane Sonko loxoom génnu ca moom général Souleymane Kandé bu fekkente ne cour suprême daal dinay dëggal boobee affectation nag faaw rek mu daal di koy doxal leneen lu mu ca def nag dana opposé wu ak bëggu-bëggu élimaanu jëriñ bu Sénégal l'observateur moom itam xëyee tey ji nag ci nomination bu Kandé boobee comme attaché militaire ca New Delhi yéenekaay bi xëy di peeko malaise en général ba noppi dalal nag ay leeral yoo xam ne rek bàyyeekoo na ci ay juriste jëm ci ni nga xam ne rek noonee la général bëgg attaqué boobee décret ci biir yëglekaay bi ñoom juriste yooyee nag ngay xam ne ni général Kandé am na sañ-sañu attaqué boobee décret ca kanamu cour suprême ci kaw bu jàppee ne jaarul ci yoon le Témoin mooy yëglekaay ne coow li daal jaru ko ndax général Kandé moomee Macky mii moo ko affecté ndax président Diomaye Faye nag dafa tënku rek ci décret bi nga xam ne rek moom la fi Macky Sall xaatimoon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi ñu weesu laataa moo jógee ci bopp réew Sénégal Vox Populi xëy àddu jëmale ci leneen mu jëm ci ay coppite yoo xam ne ko ca direction bu police nationale Mame Seydou Ndour moo waral ba yëglekaay bi xëy du ñu xamal patron bu yees bu police nationale yéenekaay bi ne ku daan def ay jéegoloo ci wàllum sécurité publique nekk itam naka ku daan xeex lu jëm ci wàllu drogue def na ay jéego yu am solo ci wàllu kaaraange gi ñeel frontières yi doon koo xam ne rek am na ay expérience internationale ci ONIS yi yéenekaay bi ne moom maam Seydou Ndour nag moo delloowaat Ocartis li nga xam ne rek moo di lettre de noblesse am ginnaaw scandale bu fi doon tudd ci wàllu trafic de ba mu yëngaloon boobee office ci atum 2014 ci la ko waa Jamra taboon mu di homme de l'année ginnaaw ay jéego yoo xam ne rek def na ko ba amal résultat boo am solo ci xeexum trafic de drogue les éco yëglekaay ne administration pénitentiaire bi kay moom nag daal dinañu fay tabb moom itam Alioune Cissé ngir mu daal di koy jiite waral ba yëglekaay bi gis ne ay jéego yu am solo nag teg nañ ko ndax guuleet nag ñuy gis ab inspecteur de l' administration pénitentiaire ñu koy nommé mu di ab DG ndax ba fii ñuy àddoo ay gendarme ak i magistrat rek ñoo daan jiite administration pénitentiaire waral ba yëglekaay bi ne Jomaay Fay ma ngay réparer yaram ca la ñuy àddu jëmale jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak RD Congo juróom benn fan ci weeru juin yéenekaay bi dee laaj bi muy samp bokk na ci lan moo waral ba Gana Gueye war a bokk ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo koy démarrer tey jii mi sport nag daal di xëy dalal maître Augustin Senghor moom ma ngay am yaakaar ci ñu ubbiwaat stade Demba Diop fi lekk saison bii di ñëw jeexalee koog équipe nationale bu u ci jigéen ñi yéenekaay bi ne Sénégal nekk na double champion bu UFOA démb la jigéen ñi doon jonganteeg Guinée Conakry daan leen ñetti bal ci dara